émission bis bi wala wax sa xalaat mais duñ ci wéet su boobaa avec un format boo xamante ni spécial la on a un invité spécial donc euh, bien avant de de l'introduire fas yéene addu euh, ak yéen ci yenn ponk yoo xamante ni c'est dafay du nekk Euh, des questions d'actualité comme ni ma ko waxee dégg ngeen Ousmane Sonko démb euh, ci ngoon daal dina addu daal di yëglu depuis presque vingt jours euh, bi nga xamante ne kenn xamul ci lu muy nekk bu def li nga xamante ni moom mooy publication pour annoncer li nga xamante ni moom la tuddee mémorandum la lumière sur les événements de juin yi nga xamante ni jàpp nañ ne ñoom lu toll ci fanweeri doomi aadama fii ci Sénégal dañ ci ñàkk seen bakkan alors ñu dem également fële nga xamante ni moom mooy les présidentielles di salle des banquets foofu nga xamante ni fa lay euh, dialogue euh, politique bi di amee foofu nag dialogue bi gis nañu ne euh, li ci jógee démb ci li nga xamante ni mooy wàllum parenage bokk na ci mais aussi li nga xamante ni moom mooy éligibilité yoo xamante dafay concerner xari Karim Meïssa Wade ak kii di Khalifa Ababacar Sall donc ñooñu nga xamante ni arti les articles L29 L30 ñoo leen tere woon bokk ñoom daal di leen lever question réglée pour les le premier cas l'autre cas au Qatar donc li nga xamante ni aussi moom mooy euh, arrestation yu bëri yi nga xamante ni de boobu ba léegi liñ ci jàpp ëpp na 500 euh, sénégalais yoo xamante ni ñu ngi ci kaso bi jamono ji euh, ñiy wax ak yéen am na ñoo xamante ni aussi lu bëri jot nañ ko dund mais bokk na si également ci lu ñuy waxtaanee ak sama invité bi di Davida le livre blanc bi nga xamante ni ñi ko publier mooy waa nguuru Macky Sall gouvernement bi ñoom nag danoo mujjee publier seen livre blanc boo xamante ni jàpp ne lu toll si 16 euh, doomi aadama kese rek dong ñoo décédé fii si Sénégal euh, loo xamante ni wuute na loog ak euh, li nga xamante ni moom la yeewi askan mi wax ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo Amnesty euh, Sénégal euh, wax ak aussi nga xamante ni moom mooy le mémorandum euh, du parti les patriotes Pastef du Sénégal alors tout tout d'abord comme moo ko waxee xam naa dinañ ñëwaat ci yeneen point yu di dalal sama invité bi salaamaaleykum Davida aleykum salaam Thioune ziar naa la doole ziar bien chapé avec une belle chemise ak comme la tienne aussi t'as t'as des belles lunettes oh, comme ça se en face donc de votre internet <laughs> Eh, tey xam naa ni lépp day net ah. day leer day net ma ma jaajëfal MK TV comme ni ñu koy waxee. Eh, ah. noonu rek la lépp lu di ay actualité tey dina dinañ ko faram fàccee ci ni mu ci jot a développé. waaye comme ni ñu wax rek. am sa connexion yombul ñi topp ci suba ba fii ñuy wax ak yéen it ba tey ñu ngi leen di jaajëfal mm. te it yàlla may leen kàttan ak doolay poos bi ngeen mën ne di jënd seeni i connexion am plus di escorté wu mais mm. tamit di leen di wax rek ngeen di woy di abonné mm. su ko defee day tax lépp loo xamante ne rek information la ngeen mën ko jot daar daar waaye tamit di jaajëfal kilifa diine yi kilifa aada yi ñu nekk ci lalu hôpitaux yi également suñu borom daal di fëgg seen bopp ba ñu delluwaat seen kër ñi caabi féetee ginnaaw également yi te suñu borom daal di def la leen fa dugaloon mu bañ leen fa dugal ñaanal ñi nga xamante ni ñooñu jiitu ca barzak yàlla yërëm leen te xaaree na aljana firdawsi di lay joxaat kàddu gi d'accord delluwaat naa jëlaat ko de dama koy euh, li nga xamante ni moom mooy euh, l'affaire Ousmane Sonko donc le phénomène Ousmane Sonko 2016 la dugg ci arène politique euh, bu Sénégal sept ans plus tard amul benn jour boo xamante ni kenn du ko waxtaanee c'est quoi ce phénomène bi nag lenn la préparation de jiya voilà maanaam préparation de jiya bokkut ak préparation de nit donte nit nee nañ nga nitee boo nitee si nga amee personnalité mm-hmm. boo fësalee sa identité da ngay dund sa crédibilité ba daray difficulté doo ko dund kon préparation de jiem moom mooy le phénomène Ousmane Sonko retour retour waaw ma ne nit ku nekk ak ku mën a doon boo amee préparation de jiem ah. day fekk dalool nga fësal li nga xamante ne mooy sa personnalité jël sa dignité waaye tamit dund sa crédibilité su ko defee daray difficulté doo ko dund d'accord yàlla sax boo ci toftal sa identité mm-hmm. te Sonko loolu la identité moom mooy souveraineté souveraineté googu nag moo tax tey ji ñun lii ñuy dund ñuy dund ko moom it mu mel nu kenn melul lépp pourquoi waaw mhm. xam nga Sonko bu ñëwoon woote sabadoor daa ñëw fekk ñëpp sol sabadoor mais dafa ñëw woote souveraineté maanaam ñu moom suñu mbiru bopp ci anam bu nekk waaw xam nga Sénégal mhm. dañu wax indépendance dañu ko am depuis dix neuf soixante ma jàpp ni indépendance bi moo ñu lii li nga xamante ne moo di souffrance ah donte suñuy endurance moo tax amuñu sens waat yàlla malgré la distance ñu am patience ak connaissance. Mhm. mu fësal ni Ousmane Sonko mu war a ñëw def différence. ok différence Ousmane Sonko nag moo dul neex ñenn ñi. différence Ousmane Sonko ci lan nga koy expliquer. waaw mooy ci ci nouveau type de Sénégalais bi nga xamante ni bëgg na nit ñu dund ko. mooy kii escroc mu bàyyi escroquer. incarné dalal daf moo gën dalal daf moo gën a moo dof bu am ak baat yi askan ñooy am. moom daa taxaw de défier ñëpp. mooy li ma lay expliquer. même les contrôleurs. dama ne. koo xamante ne li ma la dafa leer. Mhm. kan moo ma mën wax. muy contrôleur yeeg ñëpp ci yem léegi nag ku mel noonu bu fekkee daa ñëw foo xamante ni dafa fekk ñu bari tilim ndax ñu bari tilim mooy ki fi nekk muy njiitu réew mi di président Macky Sall. moom bi nga xamante ni dafa nekk accès au pouvoir te ku ne xam ne président Macky Sall yaa fi sës la toogee est-ce xam nga loolu. ah bon yaa fi sës la di. ah ñu ëpp Sénégalais ñoo ko far. déedéet yaa fi sës la. parce moom moment boobu dañoo gis ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Wade. ñii naan ko noono góor gi war a woon présenté waat ñii naan ko noo doom ji la fi bëgg a teg ñii naan noo kii affaire de dictature la fi indi te ku ne xam na ni Abdoulaye Wade démocrate la loo mën a wax ci moom ku ne da nga koy accepté démocrate 2012 la woon loolu. waaw 2012 moo moo produire Sonko Macky Sall la ñëw gën doole Ousmane Sonko ok. xam nga looy gis ci àdduna rek waruñu ñëw rek tëb rek egsi ci càppandaw gi dañoo waxoon fu commencé ndax bii Macky Sall toog yaa fi sës dañoo demoon ba xam ne dañoo maaroon ci Abdoulaye Wade doyal waaye léegi nit ñi fu ñu toll ñu ngi rëccu dem Ablaye Wade. maanaam dañoo rëccu fal Macky. déedéet xam nga da da nga da dañoo wàcce Abdoulahi. yéegal Macky yéegal Macky Macky booy lan rien mia foo amul dara. loolu ci ban ban ban kàllaama la. ñu ko war a xam xam nañ ko boo ma koy décortiquer mooy loolu. wàcce Abdoulahi yéegal Macky Macky Macky mooy lan. yooyu Macky waxal rek. Abdoulahi moom tur bu bu ñëpp xam moo ñu indil ay terre moo ñu indil ay berté moo ñu indil esta Abdoulaye Wade xam nga Macky indi terre terre gi moom la ñu jël daal di koy transformé terre noppi il faut sa terre donte Angleterre du pomme de terre même soo fi dofee ñu woo la commissaire bu boobaa doo lekk poulet de chair doo ko lekk doo ko tal noo koy talee léegi nag loolu nag la la Ousmane Sonko ñëw waru dindi pour que nit ñi di dem di lekk ci ci pomme de terre yi di bu la neexee ñu dem Angleterre su la neexee ñuy toog di défier commissaire boo xamante ne da ngaa jalgati. di fa nga jël air bi jël avion. jeex na. lijjanti say affaire ci bitim réew. maa la wax loolu donte Sénégal li may wax rek. ok képp ku fi bugg a tekki jamono ji faaw nga ne tekk. tekk gaa yi jox la nga lekk. toftal ci ne xale bee ka jekk wala nga ñaan juróom juróomi bekk balaa ñu la fay fekk foofu lañ toll ci réew moom. ku bëgg a tekki waaw. donc même boo góorgóorloo nekk jàmbaar. waaye yow ñaata ci góorgóorlu lañ jël dugal kaso. Ah bari na ay góorgóorlu yóbbu leen kaso. ñu jël leen yóbbu leen kaso. ku nekk nag ci domaine bi nga doon góorgóorloo ci lañ lay jël dugal la kaso ñii ci waxukaay gi la ñu dugal leen kaso ñii ci pressé bi ñuy pressé ci wàllum diine yàlla moo ne lii ku def lii nañ la lii ñu jël la dugal la kaso. ah bon ah bien sûr gis nañ ko fi on peut en citer même beaucoup de choses beaucoup de gens. kan kii di Oustaz Assane Seck. Oustaz Assane Seck bu Zik FM. dafa ñëw wax ci li nga xamante ni moom mooy taxaw tolluwaayu Sénégal te ku ne xam na ni fitna donte day nalaw. suñu borom leen rëbb na ko koy yee waaye nga gis lu mën a tey ji taal penc nga nopp ci complice nga moom nag loolu la doon bañ mu nekkat kii ñu koy jël booba tey ñu koy sonal mun naa ñàkk gaa yi na ko déet kaay ya war a wax ñu dëxañ ko denc. appel à l'insurrection lañ koy toppee. waaw lan mooy appel à l'insurrection. wootee mouvement foule pour attaquer. léegi kon nooy def Ahmed Suzanne mi ne woon nañu rey nañu taal nooy wax ma Moustapha jaxate looy wax ak ñoom Kromaki ñoom Fouta Ndiaye tam loo leen di wax ñoom. ñoom xanaa ñoom defuñu appel à l' émission Cheikh Yérim xaw la wax lu mel noonu. Cheikh Yérim lu mu wax xam nga dans chaque couloir dañu naan yàlla vouloir même su fekkee ni détenir nga sur le pouvoir. Mm. waaye entre savoir daal am voir. muy gis gi waaw gis gi gis gi la ñun ñun toog ñun ñu gis fa la ñuy jaar wax lu ñu war a wax. ok donte parfois la parole perd ce que le silence gagne. mais on préfère parfois parler. ba bu ñu lay jàpp mu jàpp la ci anam boo xamante ni wàccoo nga maanaam seetaanoo rek dangaa jug nga asir ci moment boobu moo jàpp Karim xaru xàq nitu dëgg mm-hmm. moo jàpp Cheikh Omar Diagne mm-hmm. loolu moo jàpp lu tey jii Pape Alé Niang ba ñu bàyyi ko mm-hmm. moo jàpp lu également Serigne Saliou parce que injustice boobu noonu la ñu bañ te injustice boobu tey mënoon na ñàkk su fekkee ni ñi wër président Macky Sall te ñu jàpp ni ñoom ñoo waroon Abdoulaye Wade les vieux vampires ñu xam ne leen fii lañu toog ne wàllum transhumance baaxul ku ko def dañ laa war a ray ñoo taxawaat tey ji ànd président Macky Sall ñooñu duñ ko wax lu baax. tey il n'est pas trop tard Aïssata Tall Sall Amin Souleymane yow yow xam nga Aïssata Aïssata Tall ñooñu garaawul ay jigéen lañ mais góor ñi laa la wax. ku ci man ne ku ci mel ne Souley non déedéet mais dafa ñaaw ci góor boo xamante ne da toog nga ne Souleymane Ndéné Ndiaye fii la taxaw ne képp koo xamante ne da ngaa transhumé war nañ laa rey. fusillé la ma koy nuyu nga xamante ni moom ak sama papa ñoo daan bokk benn lala. kon moom jamono ji waroon nañ ko moom il est il est il est de Guinguinéo. waaw waaw waaye moom fu mu nekk léegi. mu ngi ci Macky Sall. ana ana ana Serigne Mbacké Ndiaye. mi ngi ci